mara noo mën a nangulee yaqiin ak tawxiit doomi adama yi ci juróomi nit ñooñu te li ñu ko wax lépp ci ay barab la ay barab la kenn moo ci wax tudd nit muy bàyyi ñeent ña kii prison la wax barab la yu tubaab tuddee chose chose la du personne c'est une chose prison eh, keneen ki feebar la jaamu yàlla la mbir la du dund du doomi aadama keneen ki eh, prison la feebar keneen ki batalo joolaa la accident la yàlla muccal ko keneen ki tukki la nekk àll juróom-ñaari at lam fa dund bi mu ñibbisee la xam ne kenn du allah subhanahu wa ndax na ko fa yàlla wan ak na fa yàlla dundee ak moom ba dellu siwaat ko ci réew mi waaye léegi noo mënee jël tukki yëg ci yàqin yëg ci avion yàq yëg ci yàqin jël accident nangul ko nit ki ci yàqinam jël feebar nangul ko nit ci yàqinam jël prison nangul ko nit ci yaqinam après bañal ko doomi adama te yàlla wax ci alxuraan ne wala xadd kanam naa banni doomi aadama lu ma sàkk man yàlla nit ma ci gëna yàlla daal mën naa yokk taw xetub jaam jaarale ko ci kaso yàlla daal mën naa yokk taw xetub jaam jaarale ko ci feebar yàlla daal mën naa yokk taw xetub jaam jaarale ko ci tukki yàlla daal mën naa yokk tawxiit ak doyloob jaam jaarale ko ci absida waaye mënta yokk tawxiitu jaam ak doyloob jaarale ko ci banni aadama ñoo xeeb yàlla ñoo yëpp yàlla subhanahu ya bu yebuñu ma de ñiy génn ci internet bi di ma critiquer ak di ma yàq di ma saagee ndey yabuñu ma man ndax man nawlawu ma leen taluma leen te faalewu ma leen boolewuma leen sa sama programme mais yàlla la ñu yàq. Omar du ci nit ki mu feeñee la ñu jàpp ne warul mën a ne mooy nitu musicien la li muy def mbiri àddina la zaayir la est-ce que du loolu moo tax mënuñu nangu nga ne kii moom a tax ma doy loo yàq. loolu mooy ñàkk maanu yonent bi xam nga lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi wuyoo ak julli del julli néew ma juróom waxtu téeméeri waxtu ak ñaar bu maanu newul ci yow sa julli des na Cheikh Fall Babou Mouridina yegg ci ne maanoo gën julli waa ko ñàkk maanu mi ngi tàmbalee ci jëfub jàmbur xamoo lan la yëg ba jëf ko ngay contrôler la jëf ji fa mën a jëm ak fa mën a jëm mayu ma ko nit man man Omaro yàlla bindul ko sa bopp jëm kaw sa tànk jëm suuf ma may la man Omaro ngay contrôler sama jëf fa mu jëm ak fa mu jëmul fa ma ko neex laa koy jëmale ndax fa ma koy jëmale fa laa ko yëgee te dama la ne sama jëf ji ma tuddee addiya barke Cheikh Saliou Mbacke mi ma yaakaar bu ma ko yëgoon ci Ouzin Keita barke Cheikh Saliou Mbacke ci Ouzin la jëm bu ma ko yëgoon ci Pawlish Mbaye ci Pawlish la jëm bu ma ko yëgoon ci Bouda Bey ñi nekk ci showbiz bi nga jàppaleen ay comédien laa wax de dama ne ñi nga Wally Seck mooy kilifa showbiz bi c'est le roi de la musique africaine mooy suñu président mooy kilifa ak showbiz waaye dama la ne ñii ñu jàppee ay comédien laa wax sa seen jëm bopp bu fekkoon sama yëg-yëg gii ci ñoom la jëmee muy Pawlish baa Ngouda Beye baa kii nga xam ne tey mooy kay Keita ma jëmee ko ci ñoom te bu yokkul du wàññi ko euh, léegi li ngay wax peut-être bi nga ko développé toj ko xel nangu na ko parce que man man mi wax ak yow dégg naa fi ngay waxee léegi nag lii moo waral nit ñu war a maanu su ma nee Waly Seck dafa dafa yokk sama doyloo yàlla Omaro dafa bari barke bari bàyyi le keneen mënoon naa wax lii wax ko ci keneen te du jur coow lii mais yàlla dafa dogal ki ko wax mooy Sénégal kim mu ko waxal mooy Sénégal. léegi fu ma bëgg ñu ñëw. moo waral foofu coow am mais lii ma leeral lu ko gën a leer amul ci àdduna.